dal leen ak jàmm seen a ak seen seen YouTube TAS info Eh, kii nga xamante ne moo di ñii di waa Pastef eh, wala ñii di waa ex Pastef bi nga xamante ne moo di parti bi ñu dissoudre te ki ko amal ne di ñii di way nguur gi loole nag la ca tegu jamono ji moo di ni eh, démb daal dinañuy gont ñoom ci levée du corps bi nga xamante ne doon na am foofe ca fële ca ginnaaw raay mu di levée du corps ginnaaw ki nga xamante ne moo di kii di Maimouna Sadio mi nga xamante ni moo wàccu liggéey ci bërki démb ñoom ñooñu nag daal di leen koy gunge ban fa jógee leen wéyale ci nemmiku ñi nga xam te ni ñoo di famille ñi amee li nga xam te ne moo di ay mbokk ak i jege ñaari yoo xam te nekk nañ ci biir kaso gi ñoom ñooñu nag ñoom waa Pastef ñu ngi ko àndal ak ñii di seen euh, coordonnateur. coordination générale boobu yore wàllum jeunesse bi di ñii di waa JPS ànd ko ñii di waa FRAPP France Dégage ñoom ñooñu ñëpp ñoo àndoon ngir seeti ñi nga xam te ne ñoo di famille yi nga xam te ne Euh, ay détenus lañu ngir daal di leen di masawu foofee sax fan gën a xamlewaat ki nga xam moo di kii di El Malick Ndiaye ci fesalaat ni kat la gën a war ci jamono ji moo di séenu ko booloo naka noonu di diglu te teewlu ki nga moo di kii di njiit la di kii di Ousmane Sonko ndaxte ñoom jàpp nañ ba léegi ci ni kat na ci ñi nga xam ñoo war a bokk ci jogante yi njiiti réew mi moom la ñu jëm jongante nga xamante ni jamono ji lu toll ci ñaat téeméer ak lu teg dal dañuy inscrire ci ni kat ñoom dañu bokk ci la yi mu di war lijjanti ji lu jëm ci ay parrainage ndax dinañ ko am ndax duñ ko am loolee nag ci kanam raw li gën